alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wa nsur calayna qadaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi amaan mbégte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 di bég lool di bég lool léeg-léeg nit feeñu ñu ci waxtaan yi ni ma koy faral di waxe waaye kàddu yi ñuy jokkalante doon ab soññee ci ñun léeg mu jaral ñooñ dañuy yëkkati seeni téléphone woote ak ñu yónnee ay message ña ca jot ak ña ca jotul ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu xarit sous te di ko ñaanal borom bi subhaanahu wa taala mu yokk koo dëgëral di ñaanal suñu jigéen docteur Ana ja ak mboolem ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel daana wax ne bisu àjjuma bisu feet la ci jullit ñi di bis boo xamante ne ab xutba da ciy am waaye ak jullit jumaa da ciy am loolu nag njariñ lim amoon mooy ñu jàngat tolluwaayu jamono ci liñ nekk lépp di ndokkeel bu baax suñu mbokk yi nga xam ne ñooy e, waa sàmm jikko yi di leen jaajëfal bu baax ñaan borom bi subxanahu mu defal leen ndam. ndokkeel leen ci taxawaay yi am ci lépp loo xamante ne lu yàq jikko yi la ak jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ak mboolem association yeeg këru diine yi nga xam ne ànd nañ ceeg ñoom di ñaanitam borom bi subxanahu wa taala def xéewal gi nga xam ne moom la seex Muhammadul Muntaxa woote woon ci ay bis gi te muy tudd yàlla subxanahu wa taala ndax wala zikrullahi akbar te li gën ci làmbi ñu di di tudd mooy laa ilaha illallah. moo xam nit ki da ko biral moo xam nit ki da koo yellu yal nañ ci dajeeg ngërëmul borom bi subhaanahu wa di ñaanal bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ay jàngalekati diine lañ borom bi subhaanahu wa boole leen sàmm bu ci kanamee tuuti ñu ànd ak njiit yi maanaam ilimaan yi ñu taxaw ci kaw min bari waxtaan ak ñun xam naa tey ci xutba yi moom bu fekkee waxuñu ci actualité ak yi nga xam ne moo ci am li jaarooti tañ koy répété waat ak di ko baamuwaat saa su nekk mooy njeexitalu at mi ak taxawaay yi nga xam ne moo ci am am na loo xam ne jotoon naa ko ci junju suñu borom subhaanahu wa taala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo araamal ci ab jullit muy feete feet gi nga xam ne moom lañ dëgmal moo xam 31 décembre la wala 24 décembre ci ay déggin nag yu bari ndax bis bi boo ko jàppee muy iit jàppee ko muy feet loolu nekk biddaa nekk loo xam ne luñ sos la loo xam ne amut cosaan ci sharia yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon xadis ba sayyidatuna Aïcha nett li woon man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun donte nag wàllu biddaa moom werante waanki ba démb ci ngoon waaye bii moom daa am leneen loo xamante ne moom la am ci ay jagleel falaa yow yowmun bi farxin wa ixtifaalu illa bi dalil shar kon loolu amu ci li gën a yaatu loolu may wax sax ci wàllu bidaag lu dul moom mooy dadul dagan ci ab jullit muy feetu feet yi nga xamante ne dadul feeti jullit yi ñaari feet la yàlla yoonalal jullit ñi muy yoo xamante ne ay sunna la muy iidul fitri wa iidul adha muy tabaski ak korite loolu boo demee ci njàngalam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne abu daawuda moo ko nettali imaam Nasaahi ñëw nettali ko ak ñeneen ñu dut ñoom ñaar ci ay dëgëruwaayu dëgër dañuy wax ne Anas radiallahu anhu dafa wax ne xadima nabi sallallahu alayhi wa sallam al madina wa lahum yowmaani yalcabuuna bihima fa qaala qad abdalakum allahu taala bihima xayran minhuma yowmul fitri wal adha Euh, ki nga xam ne mooy anas nee na bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee madina def leen a fekk ñu am ñaari bis yoo xamante ne dañ cey fo mu nekk seen bisi feet nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen suñ borom wecceel na leen ko yeneen ñaari bis yoo xam ne moo gën ci yéen muy bisu korite ak bisu tabaski kon ab jullit nag day taxawlu nag àdduna moom bu dee lu ñëw nga bokk ci dafa mel ne bu yàggee nag da nga am foo dangay def nag sa su maanaam da ngay tànn def sa suwaa yow yaa tànn yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam doon sab yonent nga ne ab jullit nga léegi nag da ngay bañ a rëddal sa bopp nag ni ngay doxale waaye fi mu la ne yem fa nga yem ca ni mu la ne doxale ko nga doxale ko loolu itam ci taxawaayu am solo yi la bokk moo tax sharia euh, daganalut yoonalut feete feetuk juddu feetuk juddu léeg-léeg sax nga ne kum ci man di doon sax léeg-léeg ñu àgg ca ñoom ci xóotal ci yonent yi waaye nag bu fekkonte ne ñëw nga ci wàllu gàmmu am na lay yu baree bari yoo xamante ne moo koy indi waaye nag bu fekkente ne nag lu jëm ci wàllu fend ne la yi nga xam ne moo ci am loolu leneen la borom bi subhaanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alyahuuda wannasaara awliyaa baaduhum awliyaau baadin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha laa yahdi xawma xawma zaalimin laa yahdi xawma xawma zaalimin borom bi subhaanahu wa taala nee na yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm mooy yéen taalibee yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na bu leen jàppe yahuud yi ak nasaraan yi def leen ñuy seeni kilifa wala ngeen def leen ñuy seeni allié def leen ñoo xam ne da ngeen di collaborer ak ñoom ngeen doone allié seeni feet ngeen ànd ci ak ñoom mel ne ñoo xamante ne la ma waxoon dañoo waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko léegi nag mën nañoo mën nañoo déggoo ñun kay bu ñu amee suñu jaamu ñëwal ànd ak ñun ñu jaamu suñu yàlla ak suñu yëf yow itam boo ñu wooyee sag yàlla ñu ñëw ànd ak moom jaamu ko jàmm ne ñooyu léeg-léeg da ngay jàpp ne am ouverture ak am euh, depassement wala yaatu dënn mooy mën a mën a boole yooyu yëpp te fekk loolu du loolu loolu du loolu maanaam léeg-léeg complexe dugal ci nit ki te du ko tey léeg-léeg complexe dugal nit ki mu toog ci taabal ñu teg ci sàngara waaye du am fitu jóg day jàpp ne bu jógee moom dafa doon nit koo xamante ne dafa teeng dafa nit koo xam ne ku radikaal dafa nangam dafa nàngam looloo lay yóbbu ci yu baree baree bari ba ni nga yare sa njaboot sax doo ci bàyyi xel li lay metti mooy réew mi ñu fi ëpp ay jullit lañ jamono jii ñu ngi ci jox xale yi feet feet gu yaatu goo xamante ne duñ ko am ci tabaski feet goo xam ne duñ ko am ci korite feet goo xam ne duñ ko am ci bis yi nga xamante ne ñun suñ bisi ngëm-ngëm la suñ bisi diine la nga xam ne doom yi dañ caa soxla woon a dem julli ji waajur yi dañ caa soxla woon a am fan yu yaatoo noonu déedéet duñ ko am waaye nag yeneen yi nga xamante ne moom dañ koo indi ñun mu tax ko ñu te bokkut ci ñun maanaam ci lañ koy def te duñ ko yëg moo tax li ñu war a soppi bari li ñu war a soppi bari suñu njullit moom mënta wér mukk lu dul ne xattaa yu xàkki moo ko fii ma shajara baynahum lu dul ne suñ yëg-yëg yi dañ koo delloo ci njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu daa war a nekk yittey jullit moo tax borom bi ne koo xamante ne def nga yahud yi wala nasaraan yi ñuy say allié ñuy say kilifa ca ñoom nga bokk yàlla nee na nag tooñkat yi moom defuma ak ñoom nenn loolu da nga déggee kontaan ci eh, yi nga xam ne moom la ñuy taxawal ndax ki la ne yàlla ñett la ne la doomi yàlla ji moo juddu mm. nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala nee na asamaan ba mu ko déggee xaw naa fàq suuf si ba mu ko déggee xaw naa mëbaxu ndax tiit takkaadu takaadu samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ard wa taqirul jibaalu hëdda andahu lirrahmani walada wa maa yambaqi lirrahmani an yattaxida walada in kul man fi samawati wal ardi illa aati rrahmanu abda rek yàlla nee na looloo am ñi nekk ci kaw suuf ñëpp samay jaam lañ ñi nekk ci suuf ñëpp samay jaam lañ waaye nag ànd ak nit ci pas-pasub ñettal yàlla yi nga xamante ne ñett la yàlla moom ñett la waaw yàlla xel mu sel noonu ñu koy waxe yooyu du du taxawaayu jullit du taxawaayu jullit maanaam bu fekkente ne dem nga ba boo ci waxee muy ak tooñ wala ñu jàpp ne ñàkk maandu la maandu gi kon mooy ab jullit itam maandu ci lépp loo xamante ne ni du njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu yàqut ci suñ dëkkuwaay bu rafet bi dara yàqut ci suñ dëkkuwaay bu rafet bi dara man ci misaal mi ma ci mën a joxe te muy lu ma dund maak samay mag yu may dégg ñun ca Sowal Fadiouth la ñu ganee àdduna suñ kër gën dëkkoon góor gu ñuy wax Pa gi Njaay moo ko moom te bokkut ak ñun diine sama baay dëkkoon fa luye fa ñu gane fa àdduna waaye euh, bu feet yi masaana am ñun dañuy nekk ca lañ nekk ba suñu feet amee ñu nekk ca lañ nekk maanaam ñun nekkul ne dañuy ànd ak ñoom di feetu donte nag ñoom ca seenu rafetal aw dëkk daan nañ def sax bu ñu reyee loo xamante ne ñun jullit yi duñ ko lekk ñu rey ginaar wala loo xamante ne ñun danañ ko lekk jox ko suñuy jur ñu togg ko ndax xale yi bañ a gis lële seeni xel di ca nekk loolu nekk dëkkin wu rafet woo xamante ne amoon na waaye mësta indi nag ñu jàpp ne ñun kenn ku nekk daal ngir e, ñu juboo dañoo war a nuroo déedéet kenn ku nekk mën naa nekk ca lam nekk waaye nag du tax nga di ko ca fekki ndax jàpp ne loolu mooy tolérance ak yu demee noonu ab jullit day moytandiku di nuru kurut ab jullit man tashabbaha bi xaw xawmin fa huwa minhum loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale bari na ci ñun ñoo xam ne suñ barabi liggéeyukaay ñi ngi ko bokk ak ñu doonu ci jullit waaye di sàmm àqi diggante nit ak moroomum nitam ndax loolu daa am àq yu ci dox diggante nit ak nit rek li ci dox ci ay àq kenn xamul nu mu toll ngeen di sàq àqu humanité boobu nga xamante ne moo leen boole waaye nag li aju ci wàllu pas-pas bu taxawee nag ab jullit day dellu ca pas-pasam ab jullit day dellu ca pas-pasam waaye nag du ko du ko xooj du ko rax bu ko yonent bi nee déet du ne bu ma ko defee ñu ne wala wala mu ne wala nàngam atashabbuh eh, bi zahir yujibu atashabbuh bil batin waaw wa yujibu aydan al mahabba wal mawadda bayna al mutashabbih wal mutashabbih bi rek maanaam nuru nurulu gi ci saayir day yóbbu nit ki bu yàggee nga leen di nuru lu ci baatin te loolu day yóbbu cofeel geeg bëggante geeg nuru nuru gi bu yàggee da lay génnee ci lii yóbbu la ca lële moo tax ab jullit day moytandiku loolu dangay ngay fexe ba ñu jàng maandu nag bu ko defee nekk ca lañ nekk bu fekkee fukki weer ak ñaar la xam xam ne jeex na ñu tiire ci suñuy ay conclusion te jàll ci leneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale nañu ko nu jàngale nañu ko nu waxoon na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu ngeen demee ba axiru zaman la tatabbi anna zunana man kaana qablakum shibran bi shibrin wa ziraan bi zir bi siraa xatta law daxalu xujura dabbin la dabaxtumuuhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ñoo ñan la yonent saxaaba yi laaj ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne al yahud wa nasaara nee na mujju jamono da ngeen doyadee doyadee doyadee ba topp ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon ñu def ngeen def ko bu ñu duggoon ci paxum mbëtt sax ak loola la muy ñàkk ñàkk njariñ bu moytuwul ngeen ngeen raam fekk leen ci biir paxum mbëtt ma ndax eh, ñàkk gu ngeen ñàkkal solo seen bopp loolu kon moytandikuloo woon nañu ñu foye suñ bopp moytandiku woon nañu ñu foye suñ bopp ab jullit loolu da koy da koy moytandiku day moytandiku eh, eh, foye boppam ci lépp lu mën a doon njeexitalu at nga xamante ne dañuy jóge cim at di dugg ci meneen at nit ki nag mën naa cee jàngat waaru ci comme liñ doon waxtaane comme liñ doon waxtaane nga xamante ne lu ñëw lu ne war nga cee mën a jàngat war nga cee mën a waaru war nga cee mën a xamaat fan ngay teg sa tànk ndax di évaluer xam ne sa dund gi mi ngi dem te dund gi mi ngi dem ñun dañ naan at yi dafa gaaw rek l'an 2000 ak léegi rek at yaa ngi dem de waaw nga xamante ne yéemu gi boo moytul ci foofu lay jëm léeg-léeg nag dañuy bëgg mu gën a mu euh, mu mu gën a mu mu gën a yaatu loolu ci ab jëmuwaay mu gën a yaatu loolu ci ab jëmuwaay nga xam ne da nga ci jàngate ak gën a góorgóorlu da nga ci évaluer sa dund xool ba xam ndax yow yaa ngi ci doxalin wu baax wi wala déet waaye ñun liñ am ciy feet dong yaakaar naa bu ñu doyut nag dara dootuñu doy waaw li ñu li li li ñu am ciy feet yiñ keriyal suñ bopp ak yi ñu diine nangul ak yëpp dafa war a doon yoo xamante ne war nañ cee mën a jàng war nañ cee mën a jàng waaye nag loo xamante ne nii pas-pas da koo dàq nga xam ne bokkaale la feetu bokkaale la ci ab jullit laay wax nag ki gëm njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko yonent bi jàngalee loola moom da koy moytandiku waaye sant borom bi subhaanahu wa taala nag mi la may nga dund daaw ba fekke ren moom mi nga xam ne moo def alleyla wa nahaara xilfatan liman araada an yadakkara aw araada shukura noonu la borom bi subhaanahu wa taala binde binde yëf yi waaye ba muy wax naan walladina laa yashhaduuna suur ñi nga xamante ne du ñu seede aw fen da caa bokk mooy ñi nga xam ne euh, du ñu feetu feet yi duñ ci ànd ak ñi nga xamante ne nii ñoo taxaw di dëggal ne yàlla euh, euh, maanaam yonent yàlla isa doomi yàlla la borom bi subhaanahu wa taala nee na tuub waaw isa du doomi yàlla isa yonent yàlla la boo xamante ne abdullahi wa rasulihi la doon ndaw doon doomi yàlla subhaanallah doon jaamub yàlla waaye doon ndawam doon jaami yàlla doon doon doon doon jaamub yàlla doon ndawam nga xam ne ab jullit moom pas-pas boobu lay am alquran nettali nañu euh, ki nga xamante ne mooy yonent yàlla isa alayhi salaam ni nga xamante ne nii noonu la ñëwee nettali nañu ko nettali nañu ko ci lu baree baree bari boo demee eh, ci téere bi da ko fa fekk suñu borom subhaanahu wa taala indi ko fa indi ko fa ci ay façon yu baree bari ndax ba muy wax eh, tànn ga nga xamante ne moom la yàlla tànn hmm, Oustaz Alioune Sall daan wax ne mabdawul ixtiyaar borom bi subhaanahu wa day wax ne inna allaha astafa aadama wa nuuxan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina zurriyatan baaduha min baad wallahu samiun alim waaw mu mel ni day wax ne suñ boroom tànn na aadama tànn noox tànn njabootuk ibrahima ak ibrahima tànn njabootuk imran yàlla tànn ñooñu ci mbindeef yi njabootuk imran googu nag di fami imran di aalu imran ca la yonent yàlla isa bokk borom bi ba mu ñu koy nettali dafa wax ne id qaalat imraatu imraana rabbi inni nazartu laka fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka anta samiul alim yàllaa ngi ñuy wax ne jabari imran ja ñu koy wax xànnata ba nga xamante ne nisër na maanaam ñaan na boromam subhaanahu wa taala ndax am na lu mu yëg ci biiram mu ne yàlla maa ngi nisër di wax ne lii nekk ci sama biir bi day mu nekk koo xamante ne ku ñu goreel la ñuy doon maanaam ma féetale ko jaamukaayu yàlla bi maa ngi lay ñaan nga nangul ma ba mu amee doom moom xan na doom jaa juddu doon jigéen doom jaa juddu doon jigéen moo tax muy wax boroomam naan eh, xaalat rabbi inni wadaxtuha unsa man de yàlla jigéen laa am góor laa ñaanoon ndax bëgg mu féetewoo jaamukaayu yàlla bi mu ngi nii juddu doon jigéen daal koy tudde Maryama ñaan borom bi subxanahu wa taala ñaanam gu rëy ga te mooy wa inni samaytuha Maryama. wa inni uizuha bika wa zurriyataha min asheytaani rajim tudde naa ko Mariama di ñaan nga musal ko ci seytaane euh, borom bi subhaanahu wa taala bam ñu koy nangul da ko nangul loola def Mariama nam ko def Mariama nekk ca ka yor ab yaram te mooy Zakariya wa kafala wala boog wa kafalaha Zakariya ñu jël ko méngale ko Zakariya Zakariya kallafoo ko yor ko kullama daxala alayha zakariya al miraaba wajada indaha risqa bana mariama meloon ci jub gaag noonee mu sàmmoo woon ak ya nga xamante ne noonu la demee benn bis nag moom mm, mariama wala euh, waaw moom mm, moom ki nga xamante ne mooy euh, mooy mariama noonu noonu yi la demee ca mm, euh, fa dem borom bi subhaanahu wa taala dogal lam dogal boo demee ci alxuraan am na weneen saar woo xam ne Eh, suñ borom mu ngi ko tuddee eh, Mariama ci boppam nett li na ca lam ca nett lépp ci loo xamante ne nii buñ ca dikkee mu gën a yaatu alaa kulli xaal eh, defe naa ne ki nga xamante ne mooy yonent yàlla Isa ki nga xamante ne yonent yàlla Isa la nga xamante ne jaamu yàlla la doon ab yonentam waaye nag du doomi borom bi subxanahu wa taala loolu ab jullit na ko dàq yàlla nee na baat boobu bu ko asamaan si déggee day téll téll ndax tiit yéen nag ngeen dégg ko ne cell yéen ngeen dégg ko ne cell loolu lool leneen la bi mu ñu koy nettali ca sóoratu maryama saara wa ko borom bi tuddee dafa wax ne waskur fil kitaabi maryama idin tabasat min ahliha makaanan sharqiya fattaxasat min duunihim xijaaba fa arsalnaa ilayha ruuxana fa tamassala basharan sawiya yàlla nee na maryama maryama nga xamante ne euh, ci sàmm googu ak fegu googu mu nekkoon ak beru googu mu beru benn bis Mariama ba mu demee ca fam dem ñenn ñi ne ca dex ga ñenn ñi ne fa nekkoon di fóot ay yéreem wala yu mel noonu fala ko la ko fa fekkal fekk muy ndawul boroom bi subxanahu wa taala ndax loola loolu la ko wax ba mu ñëwee ca Mariama wax ko ne ko dama lay may doom damaa ñëw doon sa ndawul borom Mariama daa muslu ci moom mu ne ko innama ana innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki xulaaman zakiya waaw damaa ñëw ngir may may la doom. Mariama ne ko nan laay amee doom te séquma góor te nekkuma kuy foye boppam mu ne ko loolu yomb la ci sa borom loolu yomb la ci sa borom ndax da koo bëgg a def mu nekk aayatan lin naasi kon yonent yàlla Isaa ayet la min aayatillaahi taala waaye du doomi borom bi subhaanahu wa taala subhaanallah loolu Mariama foofee la amee doom gàddu doomam ñëw moom xamoon na loola waaye Mariama jàppul woon ni nit ñi danañ am fitu naan ko doomi yàlla nga indi moom kay lam doon xalaat mooy ñu ne ko Mariama dangaa taxawaalu ba am doom ci àll bi dangaa taxawaalu ba am doom ci àll bi moo tax euh, keroog Mariama daa wax ne yaa layta nii mittu xabla haada aka neexoon ma dee lu jiitu lii di xew ma doon naf yan man si yaa doon koo xam ne dañ koy fàtte léeg nit dara dal ko ci pénc mi mu wax loolu wallaay li may dund dee sax a ko gën léeg gàcc gàcca amee noonu yal na yàlla musal gor yépp ki tegoo gàcca waa ci tegoo gàcce mooy lii xawma fu ma koy waxeeti keroog bi e, sayyidatuna Maryama indee ki nga xamante ne mooy yonent yàlla Isa leewu doomam ñëw ci pénc ma fa atat fa atat bihi qawmaha tahmilu lañ ko wax mooy yaa maryamu laxat jiti shay'an fariya yaa uxta haaruna maa kaana abooki imraa saw im wa maa kaanat ummuki baxiya waaw maryama maryama ah indi nga mbir mu yéeme nag yow mbokkum aaroona mi yow sœur bi sœuru aaroona bi sa baay day ku sàmm la woon sa yaay ku daan woddu ba dëgër la mooy sa doom ji kon noo def ba am ko ndax ñun yëguñu fuñ la takke keroog Maryama moo joxoñ doom jim leew mu yonent yàlla Isa ne leen moom ngeen di waxal Isa moo wax mooy lan moom waxul ne man doomi yàlla la Isa la mu wax mooy inni abdullah man jaamu yàlla la aataaniyal kitaaba wa jaalani nabiya wa jaalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bilsalaati walzakaati maa dumtu xayya wa barram bi waalidati walam yajcal nii jabbaaran shaqiya wa salaamun calaya yowma wulittu wa yowma amuutu wa yowma ubcasu xayya borom bi subhaanahu wa taala daal cey teg ne dalika isa bnu maryama xawla alxaq alladi fiihi yamturuun yàlla ne kookoo yonent yàlla isa isaa moo ni leen man jaamu yàlla laa boo xam ne saa borom dana ma joxub téere def na ma may ab yonent def na ma may ku barkeel fu ma mën a nekk dénk na ma julli ak asaka li féeg maa ngi dund danaa baax jëme ci sama ñaari waajur du ma doon ab bandi wala ab agresseur ci pénc mi yàlla yàlla nag ma jàmmal ni nga ma ko defale nii ci sama juddu nga jàmmal ma su may faatu nga dekkal ma ci jàmm yàlla ne koo koy Isa daa di wax wax juree ji nag mooy maa kaana lillaahi an yattaxida min walad waaw yellut ci borom bi subhaanahu wa taala ñi koy wutal doom waaw yàlla du yàlla du koy am doom ba naan kii mooy dooma mag mm, mooy nangam déedéet loolu doyewu ko dara yàlla doyewut ay doom dara ñun dañ fii jóge moo tax ñu bëgg ay doom yuy continuer suñu projet borom bi subhaanahu wa taala mi ngi fi te doyewu ko dara maa kaana lillaahi an yattaxida min waladin moo tax subhaana foo ko déggee neel subhaanallah waaw foo ko déggee waxal subhaanallah moom lu mu bëgg mu nekk ida xadaa amran fa innama yaqulu lahu kun fa yakun moo tax mu ne yu mel nii ci bis yi bu ñëwee ñuy bàkku di wax ne borom bi subhaanahu wa taala am na doom yàlla nee na wax ngeen lu rëy laxat jitum shay'an idda wax ngeen wax ju bon indi ngeen lu yées nee na takaadu samawaatu yatafattarna minhu asamaan si day bëgg a dajjeeku wa tanshaqul ardu wa taqirul jibaalu hëdda an daaw lirrahmaani walada wa maa yambaqi lirrahmaani an yattaqida walada in kullu man fi lsamawati wal ardi illa aati rrahmaani abda laqad axfaahum wa addahum adda wa kulluhum aatiihi yowma alxiyaamati farda allahu akbar kon mbokk yi ab jullit naa am taxawaay waaye am fullay waxtaan ak eh, njabootam waaye ci taxawaaye nag rawat na ci bis yi nga xamante ne nii moom lañ dëgmal ak jamono jii nga xam ne moom lañu nekk yal nañ yàlla may ñu mën a dund suñu diine yal nañ yàlla may ñu mën a taxawee jaamu ko te lépp doon loo xamante ne nii daje ngërëmam mooy tax yàlla mën na ko yal nañu ko boole defal ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te jaajëfal mbooleem ñi nga xamante ne ñooy topp baax jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall jàngalekat bu mag bi moom la ñu bàyyee toogu bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaaya wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa